tey fi ñu génn waaw gis nga ko tey waajal rek. waaw waajal rek pour bëgg ñëpp kontaan euh, di wax ni macha allah tey tey ay naw jóge bu fas yéene dajee teg ñoom dajee fan si bëggal leen comme d'habitude rek xam kaaw xam ko bu doon daanaan tey prestation bi di ko gis naa jaag waajal sa fan waaw li ma waajal sama fan leen di wax ne leen da gis kaaw ci petit écran bi di kontaan di ko seetaan ci site di kontaan tey live la taaw di defal ñun tey dañ leen koy jox ba ñu kontaan parce que tey euh, bu dul woon ñoom ñun li ñuy def du am sens kon def dara ñoom ñu ko bëgg ba tax ñu mu yóbbu ñu fii parce que dama naan ñoom ñoo ñu indi fii ñu indi tey tey suñu accès fii rek grâce à ñoom kon tey delloowaat leen jukkal la. tey dañoo toog jàkkaarloo fas yéene defante lu baax. secret kaaw lan la ndax yaa ngi woon Dakar jékki-jékki gis la Thiès nga mel ni fa nga dirigé mel ni fa nga ko. waaw euh, waaw avant tout je suis Thiessois waaw Thiès laa juddoo Thiès laa màggee Thiès laa yaroo Dakar liggéey moom moom ànd ànd boole ma ak yoro muy sama rak ñu bokk benn papa muy sama xarit ñu bokk ci liggéey te liggéey demaat ma delloowaat ko sama dëkk. ma delluwaat di ba tey maa ngi Dakar maa ngi Thiès fan yële ci ginnaaw jeex internet bi rip daaw ñoo ko gisee yàlla laa def parce que su ma demee bañ may xool di ma rey te yàlla reyu ma damay gën a am espoir parce xam ne kon maanaam comme maa ngi noyyi di gis ne ñu may tàgge alhamdulilahi rabil alamin en li may wax mooy di ma tàgge léegi waaye ma rafet am ñu koy dégg en tant que artiste man jàngat nga am ci série polygame. li ma ci jàngat mooy euh, euh, maanaam comme ni ci gars yi jàngat rek mooy def nañu série bu baax def nañ série bu neex sénégalais yi sénégalais yi consommé ko mu neex leen wax dëgg ko yàlla mu nekk loo amul kuy dox tey ca àdduna. te doo ko wax polygame te xamu ko kon ça veut dire que ne na bëri bu intéressé nit ñi bon ñu wëlbatiku ñi koy def ak ñun ñoo bokk benn fréquence ñoo bokk benn kii ñoo bokk di tëddandoo ñoo bokk di lekkandoo kon yaakaar naa ni euh, polygame dafa yëkkatiwaat tey li nga xamante ni dafa xar mi kawar. waaw jamono gisoon nañu xam nga Thiès ay 100% Thiès ngeen woote jamono ñu gisoon ay ñagas-ñagas yu am ci diggante ñaari artistes yu mag ci Thiès sénégalais yëpp ñaawlu ko kenn naq ñëpp ko ko naqarlu. yow en tant que comédien est-ce que pare nga pour jubóole ñaan ñooñu muy saani ak Vieux Ba. non ñooñu ñoo bokk ndey ak baay. dawaay sa sax kër kër kër bokk ak baay ñu jékki-jékki ne ñëwal àtte ñii waaye ñoo bokk ndey ak baay da ngay jékki-jékki ñu ne kaay jàpp doomam lay dóor. waa noo defal naa man li ma ciy wax mooy Sané amul benn problème Vieux Ba amul benn problème kon damay wax ni seytaane moo ëpp doole képp kuy dox. seytaane fo ñëwoon te jeex na. nga ah, yow de bu yàggee ma ni da saaga xanaa yow sama taaw xanaa léegi ma maase ak moom. Ah, ah, waaw way xam nga li ngay bëgg a indi foofu tamit mu ngi nekk beneen sooy madame. ay ko jadeere na boobu lan la. moo tax moo jëmu ma ñappal sama xon yow. c'est ça. waaw waaw appartement waaw macha allah euh, Ndeye Ndiaye euh, nekk sista nag nekk koo xamante ne ni damay wax ne dañ ko nampatal ci théâtre ndax tey jëkkëram moo nekk tey scénariste bi bind di nuyu Samba Diaw aussi tamit ñooñu tey nekk ñoo xamante ni tey yal na ñuy joué lu nekk rek bu ko Samba bindul Alsaan bind na ko Alsaan moo jëkkëru Ndeye Ndiaye euh, kon Ndeye Ndiaye dañ koo nampatal. ci aar ci aar lañ ko ngoro ci aar lañ ko takkee kon yaakaar naa ne moom dañ ko nàmpatal suñu suñu doom la suñu jarbaat la suñu jabar la euh, ba ba tax na li mu sañ li mu ñuy wax moom dong moo ko sañ liñ ko sañ a def aussi ñu dong ñoo ko sañ def sañ nañu mu tëdd ak jëkkëram ñu la ko jógal euh, kon yaakaar naa ne loolu romb nañu fenn fii euh, li ko indi nag mooy aar rek moo mën loolu aar rek moo mën Ndeye Ndiaye suñu jigéen la ñoom ñëpp suñu jigéen la mais Ndeye Ndiaye wax dëgg yàlla bu am respect am cër macha allah kon damay wax ne alhamdulilah rek waaw ndeyee njaay day njaay day dama ko wax bu lekk si ngom ndax day lekk si ngom mel ni ku yëy gàlla carax katax katax daa jóg daa jóg